dal leen ak jàmm ci xibaar yoo gën a fës ci bis bi ngir nag autorités xabaar yi gën a tegu ci yoon lépp jaar yoon nag waral moom jëwriñ bi nga xamante ni dénk nañ ko mbirum communication fii ci diwaan Sénégal nag démb ci talaata nag daal dinay jàkkaarloo ak tasoo xabaar yi ngir daal di publier liste yi nga xamante ni maanaam moom moo di groupe de presse yoo xamante ni daal daanaka mën nañoo jàpp ni que ñoom lañ daal di reconnaître officiellement fii ci diwaanu Sénégal ñeneen sax itam ñu nga xamante ni nag gisaguñ seen bopp daal moom jëwriñ bi li mu wax rek moom moo di nañu fexe daal daal di koy déposé euh, ni mu gën a gaawee ngir ñoom itam daal mën a tegu ci yoon dogal boobu nag li ko tax ñu daal itam daal fexe ba ñi nga xam te ni daal bokkuñu ci ñu mën leen itam sax ñi nga itam daal ñoo ñu bokk mën a tegu ci yoon wóyal bu baax a baax seen liggéey loolu nag sax itam moom moo di président du conseil des éditeurs de presse du Sénégal di CDEPS moom daan ne baax a baax situation boobee ne moom daal li jàpp daal moom moo leen tax jóg moo di fexe eh, bi nga xam te ni daal moom moo di fii daal dañoo ni moom moo eh, moo di eh, taskatu xabaar daal taxaw jàkkaarloo ak ñoom xeex-xeex bi ba mën a jot la nga xamante moom moo seen ak ak seen yelleef démb nag daanaka publier nañ liste boo xam te am na téeméer ak fukk ak ñaar ki entreprise yoo xam te daal moom la mën a reconnaître jamono bi officiellement ci taskatu mu ne am daal jamono bii nag ci diwaan Sénégal fukki télévision fukk ak benn entreprise de presse écrite fukk ak juróom-ñaar rajo fukk ak benn rajo communautaire juróom benn web tv ak itam daal juróom fukk ak nekk jamono bii en règle lu ci mën am daal moom mooy mën a ndur fay nag dem sax bay tontu ñoo nga xam te nag ñoom ñoo di kilifa fi nekk jamono bi nag mu ne leen ñoom bu ñu bëggee def seen communication dañoo daal di aw ci presse en ligne sax ba am la nga xamante ni nag moom lañ bëgg jamono bi bëgg a ñëw taxaw nag faagal li a baax moom nag li mu la bi combat la bu nga xamante am nag waaye jamono bi la war a gën a dox moom daal li mu jàpp daal la presse dafa am fii yu nga xam te ni nag moom mooy tax ñoo respecté euh, lépp lu nga xam te daal dafa jëm euh, ci wàllum créer ab entreprise de presse nag li moo di ñàkk waxtaan bi nga xam te ni tan nguuru na ko a fexe daal ba assainir li nga xam te ni daal moom moo di euh, presse sénégalaise waxtaan ñu ak ñëpp loolu nag moo waral sax itam mbir moom rek ñu ngi ciy lu a moo di lu mel ni seen TV lu mel ni itam daal le quotidien ak set TV daal ñoom ñett ñëpp daal daanaka kenn gisu leen ci de presse si nga xam te daal ñoom ñoo daal di valable eh, fii ki Sénégal lu ci am daal moom mi ngi mel ne itam daal jàpp ni que mbir am na yaakaar nag buñ ko rectifié dina mën a tegu ci kaw yoon lu ci am sax moom Aliou Sall mi nga xam te daal moom lañ dénk wàllum communication fii ki Sénégal daal nee na jamono ngir mën a seen dossier ngir itam sax ñu mën koo daal di étudier bu baax a baax ngir xool ba xam dañuy ci liste pro maanaam liste officielle bi wala itam dañu koy daal di rejeté ñuy itam daal ci beneen mbir wax itam ci mbiru ka nga xamante daal moom eh, mbiru député bi di Birima Mangara moom daal itam sax daal dinay am liberté gannaaw nag bi ko eh, convoqué foofee ne daal ca brigade de recherche daal bu fédère bu moom nag itam sax ñu ngi ne xam ne que nag ay avocat am sax ñooñu daal di fekkee audition boobee ne euh, ci fàttali nag moom mi nga xam te ne daal moom moo di Birima Mangara daal nee nañu bàyyi nañ ko waaye itam nag jamono bi daal dafa daal di toog di déglu la nga xamante ni moom moo di justice saa ko woowee mu ñëw wuyu si moom nag Birima Mangara sax ci fàttali nag ñu ngi ko faloon ci bannière coalition pôle alternative troisième voix euh, kiiraay ak naataange fii ci diwaanu Sénégal moom nag itam sax ñu ngi ñoo xam ne moom mi ab mandataire am daal buy wékki turu Mouhamed Diallo moom moo ko daal di yóbbu ca kanamu yoon ngir nag benn terrain bu nga xamante ni daf leen daal di lié ñoom ñaar ba tere itam sax ci diwaanu Saint-Louis foofee ne la ñuy daal di seen wax itam démb euh, ci talaata ji nekkoon nag bis bu nga ni nag moom lañ doon atte fukk ak ñett ay garde corps yu nga xamante ni daal ñoom ñoo ngi bokkoon euh, ci coalition sàmm sa kàddu ndax nag ñoom nag bu ñu matul sax gàllankoor yooyu daal bu ñu matul dinañ leen tëj diggante ñaari at jëm juróomi at loolu nag la procureur sax daal di sakku ñoom nag daal li ngeen di toppee rek moom moo di cause de blessure volontaire d'exercice illégal de la profession de police privée de vol avec violence de détention illégale d'armes et de plusieurs autres chefs d'accusation graves loolu nag la dossier bi rek daal di wone lu ci am daal mbir mi nag mu ngi amoon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre loolu nag itam sax moo waral loolu nag ñoom ñu daal di teg loxo fii ci diwaanu Thiès kaay ci meeting bi nga moom Barthélémy Dias amaloon na ko fii nii lu ci mënti ana ban dogal la yoon di del seen seen kanam yooyee ne ngir itam nag gannaaw ñaawteef yi nga xamante ni daal jàpp nañ ko ñoom ñoo ko daal def ci gaañ ay doomu aadama yu nga xamante ni daal dañoo loru ci xeex yooyee ne waaye nag moom El Hadji Diouf sax mi nga xamante ni nag moom moo doon euh, maanaam plaider ñooñee daal moom li mu jàpp daal moom moo di loolee lépp lu ñun toppee nag benn dëgg amu ci li mu jàpp daal moom moo di mbir mi daal euh, ci période campagne électorale la woon ndax itam daal jàpp nañ sax mbir mi nag jamono bii dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax itam sax gis nañu euh, ci élection yi nga xamante ni daal laata muy ñëw ci temps campagne électorale bi nag gisoon nañu sax am ci ñu nga xamante ni daal nañu ay gànnaay te ñooñee ne kenn woowu leen benn yoon verdict bi nag ñu ngi koy xaarandi bu baax a baax xool ana ban dogal la yoon daal jël ci ñoom mbokk yi itam dañuy dem foofu yéen ci assemblée nationale daal wax itam daal gannaaw bi ñu installé lii di président bi moom eh, président El Malick Ndiaye nga xamante di jiite foofee di pencum ndaw réew ma waa coalition takku wàllu nag ñoom daal jamono bii dañoo mer ba fut nag daal di itam sax jël dogal eh, daal di nag eh, porte bi nag yóbbu ko fa nga xamante ne nag moom moo di fa mbaxana doonee benn ndax nag nag ñoom jàpp nañ daal seen i ak ak seen yelef dañ ko daal di foqati foofee nee ci assemblée leen rek lañ bëgg moomoo daal lépp luy parité ñoom ñi waa coalition takk wàllu rawatina saa itam ka nga xamante ne nag daal Sall daal nee na dina dem saisir ña nga xam te ne daal ñoom ñoo di waa cour suprême ngir pour daal ñu mën a garantir la nga xam te ne nag moom moo di respect bu parité bi foofee nee ci assemblée nationale daa itam daal mu daal jël dogal boobu nag moom Aïssata Tall Sall li mu wax rek moom moo di daanaka juróom-ñaari atam gi mi ngi foofee nee ca pencum ndaw réew ma musul gis daal ñu daal di maanaam violente li nga xam te ne daal moom moo di règle yooyee di am foofee nee ca pencum ndaw réew ma li mu jàpp rek moom moo daal ñoom waa Pastef nag jamono bii ñoom ñoo jël lépp daal bëgg koo jël ak moo ko maanaam daal li ko dalee ci poste président ba dem yeneen poste yu topp yëpp daal daal ñoom waa nga xam te ne daal ñoom ñoo di waa waa Pastef ñoo ko jël ak yi ko loolu nag itam daal jàpp ni que du dëgg du yoon dañoo bëgg a salfaañe la nga xam te ne daal moom moo di seen ak ak seen yelleef foofee ci assemblée nationale di wax itam daal ci mbirum juuj njaaj nga xam te itam jamono bii ñu koy nemmeeku fii ci diwaanu Sénégal loolu nag itam sax moo waral daal ci diwaanu Ndakaaru Njaay brigade proximité bu Tivaouane Peulh daal dinay déféré démb barki M Diagne électricien bi bu yoo ki turu S Diouf ak itam benn agent immobilier bu yoo ki turu AK Diallo ñoom ñett daal daanaka nag ñu ngi leen jàppee nag ci benn maanaam bërëb bu nga ni daal ñoom foofee lañ bëggoon ni daal moom moo di usurpation de fonction seigneur boobu sax ñu ngi xam daal ngir daal yàkkati kër jàmbur itam ngir daal nangu kër googu leen ret la daal daal moo di daal di recruter benn faux gendarme ak itam juróom-ñaari euh, ndaw yoo nga xamante ni daal ñoom ñëpp daal ay nervi lañu ngir daal daaneel benn bâtiment bu nga xamante ni dafa nekkoon en construction élection feneen sa itam daal moo di bi askan wi fippoo nag bëgg a dal seen kaw ci lañ bëggee daw ñoom ñeent uh, samba boo yooyee ak seen ñetti patron nag noonu nag itam sax lañ waral uh, daal di leen di uh, bu proximité bu Tivaouane Peulh nag daal di ñëw daal di embarqué ñetti boo yooyee ak ñu ñu àndal daal di leen di placé en garde à vue gannaaw sax ba nga xam te nag enquête bi buur na ci lañ leen daal di yóbbee foofee ne ca tribunal ñoom nag sax li ngeen daal di def moom moo di daal placé sous mandat de ñoom nag itam sax jamono bii ñu ngi xaani ngir xool ana fan la wànnent eh, di mujj ak gëtëm neen itam ku nga xamante ne nag jamono bii mu ngi ci ay loxo yoon nag moom moo di chef agence Lamine Gueye bii nga xamante ne daal moom moo di bu banque nationale de développement économique moom nag daal neen daal dañ ko daal di jàpp rek defee rek ko foofee ca parquet moom mi nga xam te nag daal jàpp nañ ko ñoo ngi ñi nga xam ne rek moom moo bu toll ci fanweeri million ci suñu ay koppar loolu nag daal moom ci ab système frauduleux di jaaralee bu itam ba daal jamono bi daal caabeef ko féete ginnaaw di xaarit ana ban la àttekat yi del ci moom mbokk yi mu ngi noonu li moo la nga xamante ni rek moom moo gën a ci seen revue de presse am nañ mbégte kontante ni ngeen di ànd ak saa su nekk waaye nag mbokk yi du ñu yem foofu dañuy ñëw itam rek la nga xam te nag moom moo di eh, seen i fait divers ndax nag ku ne xam ne ne bis bu nekk dañuy ñëw ak yéen ci fait divers yi daal ngeen gën a comprendre ngeen ngeen gën a xam la nga xamante ni moom moo gën a xew ci biir réewum Sénégal eh, mbokk yi nag réewum Sénégal dañuy naan lépp loo maanaam eh, gëmu rek dafa xewagul waaye nag bul ne mbir amul xam nga Sénégal maanaam ñu bëri dañoo rafet xol ñu bëri dañoo doy waar ba tax na nag yenn saay nit def lu baax waaye itam nag ñu fayee ko ko lu bon ndax sax ñaari kaa la waaye daal bu ci xajee dinaa expliquer ñaari kaa yëpp ndax dafa xaw a nduroo te wute waaye dañuy njëkkee ci benn bi xam nga yenn saay ngeen gis nit wool téléphone kat ne la sëñ bi na def dama juum waxtaan ak yow ne la kat dafa am ku ma doon woo ma juum wala woo ne la kat wala bippale sax yow nga waxoon mu ne la allo kooku kan la pàppa nga ne ko déedéet mu ne la yow de nga baal ma damaa réeru ci àll bi. noonu lañ koy waxee ni ñu koy laa di waxee pour maanaam da wala leen ni que ñooñu jamono bii ñu ngi tëj réew mi ndax ki ma leen ki ma expliqué lii jamono bii daal moom mën naa wax ni addunaam mu ngi ci yàqu nga baal ma damaa juum. waaye de sama papa laa bëggoon woo dama buggoon nga wool ma ko nga ni ko Mamadou nee na wala Baba nee na wala Samba nee na dafa paan ci àll bi nga woo ko ñoom noonu lañ koy defee dañ lay woo pour maanaam jéem laa sàndi mais ci loolu dañuy victimiser wu ne la kat wool ma sama papa nga ni ko kat alaj ji nee na wala Mamadou nee na nga nga woo ko oto bagage bi dafa paan ci àll bi léegi nag nee na moom bi ñu ko waxee loolu mu jàpp ni rek peut-être jullit la ak moroomam wala itam en tant que Sénégal Sénégal ndax yenn saay nga xool ko ci sa bopp nga yónni sa rakk mbaa sa doom mu am jafe-jafe ci àll bi mu la doon woo jotul la moom nag nee na moom erreur bu mu njëkk def moo di lan moo tax moom kooku woo ko pare ne ko wol ma sama papa nee moom daal dafa mel ni sax ku nga xamante ni dañ ko daal di naawtal léegi kooku jox ko numéro bi mu daal di woote. am ku wuyu mu ne ko salaamaaleykum sa doom sàmm sàngamkat mais dafa dafa paan ci àll bi nga woo ko nee na mu wax pare paa na ko ah yow de ku baax nga mu laaj ko turam mu ne ko man sama tur nangam la dakaar laa dëkk mu ne ko yow de li nga def di nga xam ne daal teraanga teraanga moo koy fay mu ne ko te yow de dafa mel ni sax kilifa nga maanaam daal commencé koo junj mu naan ko sa bopp bi toogul mais yéen damay laaj Sénégal fii kan moo fi toog ci te ba am toog. kan moo fi toog rek te doo xalaat pression sociale bi maanaam lu mel ni njàngum xale yi lu mel ni jigéen ñi dem xew war a joxe natt war a fay location war a xëy liggéey bureau maanaam bureau dossier yi nekk yooyu yëpp nekk nekk sa bopp mais ala kulli alin sa bopp jaxasoo moom nag nee na paa bi daf ko ne yow daal dangay xalaat de sa bopp toogul mu ne ko sax te sa kër am na fa comme te yenn saa day feebar mais fii ku fi am sa kër xale mbaa mag yenn saa mu jàmbar la ba metti mbaa tànk yu metti mbaa dara mu ne ko ah yow de wax nga dëgg neen nag paa bi xam ne que nag moom jàpp na ko kañ mais boobu moom xelam demul ci sax te kooku noonu naxaatekat la voilà et maintenant nee na paa waxtaan ak moom mu ne ko daal bu subaa ci onze heures midi nga woo ma ndax nag dinaa la won ni que dinaa la jàppale nee na mu jàpp ni rek peut-être nitu yàlla yi xam nga rek yenn saa ni la ñuy jóge moom loolu la jàppoon xam nga yenn saa nga def lu baax itam nit ñëw ci yow wax la lu baax te ne moom li ko jaaxal moo di waaj da doon xam nga andi ay aaya te ko nag xam ba xam kooku day day jaxase bi diit xam naa daa mel ni alxuraan Nasir Thiam la sama benn cousin ndeysaan di ko nuyu léegi nag nee na moom mu commencé gëm paa bi paa bi ne ko bu subaa daal nga woo ma nee na comme rek mu jàpp daal kii ku baax la mu enregistré numéro bi nee mu woo ko paa ne ko ah, man de li ma la waxoon de jinne yi confirmé ko waaye nag pour loolu am nag il faut que ma ñëw sa kër ñu gisee ndax teraanga teraanga moo koy fay. nee na bon comme que itam temps yooyu xelam tëju woon na dafa jàpp ni rek que xam nga rek il faut que mu daal di maanaam gisee paa boobu pour soxlaa mën a faju nee na noonu paa bi ne ko dama fay ñëw mu tetal paa bi këram paa bi ne Louga la jóge Louga ñëw ànd ak nag benn benn bëkk néegam rek xam nga xam nga yenn saa yi ñoom ñoom sëriñ su ndaw si wala bu xaaba yi dañ lay napp dañuy ànd nit kooku moo leen di ataayal kooku moo leen defaral ndikki defar leen lépp neen daa mu ne leen kii sama taalibe la lépp lu may lekk ci ci moom lay jaar bu lekkee pare ma soog a lekk xam nga rek napp yi quoi nee na mu ñëw commencé laaj lekket ñu jox ko nee na neen daal paa bi jox ko lekket la ko ñaanal sa soxla nee na moom daal xamul na la paa daal ba bi génnee lekket bi xaalis fees dell ne ko gis nga man lii mooy sama kiraama mën naa def léegi léegi millionnaire. nee na kon mu commencé gëm ndax xam ne moom yooyu gis yooyu xamu ko woon mais rek na ne daal ak ni ko paa bi defee daal maam ñëw nax ko lu xusul ko xaalis bu bëree bëri ne ko nag man dinaa def millionnaire ndax yow da ngaa war a am sa jafe-jafe yëpp dina deñ mu commencé am am confiance nee na installé bi ci benn néeg xam nga nee na moom fi fi mu dëkk dafa am néegu gan mu installé fa paa bi. neen nag mu installé paa bi nag la lendemain ndeysaan paa bi yeewu suba teel mu fekk paa paa bi di julli yor kurusam di wér muy xëy mu ne ko waa demal boo demee tey bureau boo àggee sa bunt bureau jëndal ndox nga wis ko ci ci buntu place beeg yooyu fi ngay toog siège bi changé ko. neen daal moom itam loolu commencé ko topp mu àgg bureau yor comportement bizarre jënd ndox wis ci bunt bureau bi. neen sax ba ba ña nga xam te ñoom ñooy ay collègue naan waa mais moom tey qu'est-ce qu'il mu agsi moom nuyuwul kenn jàppun daal moom li ko Pape yox peut moom mën na koo transformer en personne très riche mu commencé xam nga rek di di di di di di xam nga rek maanaam collabore ak ak paa bi léegi nag moom paa bi ne ko il faut ma toog fi ñetti fan defal la fi liggéey boo xamante ni daal fa ngay jaaree daal di riche mais léegi ma liggéey ba ci ñëw paa bi ne ko ah man kat mbir mi kat dañ ma laaj saraxu 500 millions astafurla saraxu 500000 damaa juum bind baa ngi naa ne damaa moo tax saraxu 500000 loolu la ko wax. léegi nag léegi nag mu ne ko 500000 yooyu il faut ma dem ba àll ba jënd ay golo rendi leen foofu deret bi nag laa lay laay andiwaat. mais ne paa bi nii la ko waxee xam nga yenn saa bu ñu la waxee yenn mbir yu xaw a bisaa i kii mën na. nen daal paa ko ne daal boo ma joxee cinq cent mille ma dem ba àll ba am na ñu ma jëndee foofu jë jënd ay golo rendi ko foofu jël direct bi andil la ko nee na lii la ko papa bi waxee nee na mu dem rapidement si seen bureau wax ak seen comptable ndax moom peut-être moom yu bëri ci loxoom lay jaar mu ne mu ne comptable bi aal ma cinq cent mille francs dama ko soxla urgent sama soxna dafa xaw feebar nee na moom loolu la wax comptable bi nee na ko jàpp ni peut-être moom yooyu koo dab ndax moom par exemple il est sérieux mosul am problème xaalis foofu kon moom bu bu lebee dañ ko koy jox ndax am ne na ko andiwaat nee na mu àgg jox paa bi nee na paa bi daal mel ni ku yónni bëkk néegam ne ko demal mu ne ko yónni naa jinne yi nañ nañ daje ak moom foofu léegi golo yi am na ku ma mu ngi jóge ci àll xaw ma euh, Louga bi mi koy andi daal daal di daal daal def benn plan bu baax mu yóbbu bëkk néeg bi dem nee na nee na boobu diggante midi ba vingt heures trente la bëkk néeg bi soo ko ñëwaat andi daal benn mbuus bu ñuul bu am direct waaw ah, wan ko foofu daal benn vidéo bu ñu jël benn góor xam nga rek xaw koo reen dégg yooyu nee na nee na moom mu jàpp ne ñii caaxaanuñu nee na moom daal temps yëpp mënul woon wax diiréet lu ko paa bi wax mu ne waaw nee noonu nee nag paa bi ne ko léegi nag incha allah rabbi di nga nekk borom alal waaye nag itam il faut que nga jox ma or. ndax deret bi dafa war a ànd ak ay seenu or ak ay jaaro or ak yooyu te loolu danga koy sangoo te loolu boo koy sangoo daal day ànd ak fukki billet dix mille ñaar fukki billet cinq mille xam nga rek ne ko encore maanaam xam nga tey jii boo xoolee dix dix mille francs boo nee fukk deux cent maanaam cent mille la ñaar fukk billet cinq mille cent mille la bu nekk deux cent mille francs plus seeni or yeeg yëpp mu jox ko ko maanaam moom sax nee na boobu jour bi mu jël seeni or ci jabaram jabar ji yëg ko nee na moom noon noon noon noonu noonu paa bi ne ko jox ma ko bu guddee naa defaral sangat yi comme que ban suba laay ñibbi incha allahu rabbi daal dinaa fexe daal ba suba bala maa ñibbi bala ngaa xëy danga nga fekk lépp pare ñu ñaan lante ndax man loolu loolu moo fi andi woon nee na moom daal mu mel ni ku ñu yeew nee mu teel tëddi bàyyi paa ci ci ëtt bi di wér dëgg yooyu yaakaar ne daal moom bu yeewoo paa bi sangat yooyu après moo koy def borom alal nee moom mu yeewu suba teel ñëw fekk bunt bi nga xamante ni fa la tegoon paa bi gisul kenn nee na paa bi dem mu xool yaakaar ni paa bi mu ngi di nee na mu dugg fekk paa bi jël na la nekkoon ci néeg bi yëpp maanaam matelas ba mu ko joxoon ak lal yi ak benn canapé ak télévision bi nekkoon ci néeg bi maanaam lépp li accessoire lu nekkoon ci néeg bi daal nee na moom paa bi yóbbu na ko te nee na moom li ko jaaxal moo di yëgul benn yoon si fi fi fi paa bi yëngoo ñoom daal dañoo mel ni koo xamante ni daal dañu leen a yeewoon carrément ngir ñu bañ a dara problème boobu nag tey moo ko yóbbee ba moom dàq nañ ko fa nga xamante ni fa lay liggéeyee te instant bi moom bu moytuwul sax dinañ ko daal di porter plainte ci 500000 yooyu mu jëlee woon foofu seen bureau ndax moom da leen gëm la woon ni que fii ak ñett fan. dina ko andiwaat instant bi tamit la nga xam ne daal moom moom la waroon fa fay location mois bi fayu ko te xam na ni moom bu moytuwul dañ koy génne kër googu léegi nag moom nee na daal dafay avertir ca ña nga xamante ni yéen saa dañ leen di woo téléphone kat ne wool ma sama papa wala nangam ngeen moytu bu baax a baax ndax am na ci ñoo xamante ni daal buñ la jekkoo dañuy mel ni ku lay yeew dañuy mel ni ku lay fas te buñ la fasee lépp loo xamante ni da koy def waaw lay nekk nekk déedéet. kon mbokk yi mooy noonu lii mooy la nga tey jii moo ko doon fës ci seen fait divers bi am mbégte kontaan loolu li ngeen ànd ak ñun bus naturel bi nag gars yi ñu ngi ko laajte bu baax a baax am na nag koo xamante ni daal moom semaine passée leen ko na ma sa waaye léegi moom kër gi nga xamante ni daal amagu leen ci bus naturel bi dafay yokk seen kàttan dafay neexal ci seen biir kër 30 minutes avant nga koy jël boole ko meew mbaa ataaya xam nga rek te incha allah bi daal bu doon 1 ngay doon daal jàppan di nga doo 20 incha allah te nag amul benn effet secondaire kon mbokk yi mu ngi noonu lii moo nekkoon tey seen revue de presse ak ànd koog seen fait divers ànd koog Thierno Aboubacar Anne pour fàttali incha allahu taala ku bëgg ci bourse naturelle bi mën nga woote ci 77 618 62 08 mbaa 75 525 52 16 bu ko defee incha allahu taala di ngeen ci ànd ñu jox leen ko ngeen utiliser ko nu mu waree mbokk yi eh, jërë ngeen jëf am nañ mbégte ba suba jàmm incha allah.